alhamdulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu cosaanu feetu bi Kossy TV cosaanu bi bismillah ñu sant uh, waa Kossy TV ci seen uh, yëngatu ci xadara bi macha allah uh, depuis ban tàmbali ba léegi wax dëgg yàlla ñu ànd ñun ànd bu rafet te biiznillah du yàgg lool xalifa bi dana ñëw seet si liggéey bi su boobaa danañ leen ko wan maam tamit ñëwoon na fi waaye bi isnillah danañ toog ak moom moom tamit mu sànni ci ay ñaanam sànni ci tamit uh, ay wasiyaam yu muy joxe nasiha yi nga xamante ni nasiha yu am solo la bi isnillah incha allah kullu nafsin saayiqatil mawti yaa ayyuhan naasu harmel këram dul la gëm leen Sidi Baraham ma ne gannaaw dund gi dee cee topp baleen kan ci dem soldaar mu jëm foo ñu rappel mbokki internet yi mbokku téléspectateur Kossy TV ñu ngi wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun waa cab liggéey seetab Mawlana Cheikhul Islam Laaj Ibrahima Niass Baye Cheikh Ousmane Niass génn àdduna fële si Nigéria 10 juillet 2022 Kossy TV di ko rendre hommage liggéey bi amul solo bi mu lëkkaloo woon ak télévision Kossy TV gannaaw mu amee ndigal si wajuram serignam leppam ki yoroon xilaafab Medina Baye si Ahmed Tidiane yalla yalla yàlla yokk tax ñu si barkem tay nag ñu koy jaale khadimul umma di rakkam Cheikh Mouhamadul Mahi yalla fi yag lool ta and ko Cheikh Ousmane Niass ngi sumb bi la liggéey ak Kossy TV 16 août 2017 si liggéey melokan bu doy waar bu mu ci si yi Cheikh Ousmane Niass yii la melokaan la fekk armeelu Medina Baye fekk ko ci melokaan yu doy waar yi la armeel Cheikh Ousmane Niass amee ndigal si waajuram Cheikh Ahmed Tidiane gis ngeen image yu am solo yi nga xamante ne ni firnde la si liggéey bu ci TV ànd ak yéen si hommage bii ñuy defal Cheikh Ousmane Niass dañuy bàyyi rek Cheikh Ousmane Niass yi leen ay kàddu ñu teewlu ko déggi biñ ko galan loo gis ba bëggeen ba ñëw na Sidi Barahama waxi ndundu dee koy widdi balen quartier dem bu galdi kosse galdi départ Sidi Barahama ne guddeeg bëccëg fajara koy xatte moom laam duun moom bu jant fenki lëndëm bii min waaw comme ni ngeen ko gisee yaakaar naa jël na kii bi yëpp bi bugg neen ko gën a yaatal tabax ko tabax boo xam ne yaliqu bil mahal waaw parce que Baye dafa dem ba Baqiya natt Baqiya ñëw def ko fii te loolu yëpp mu ngi wane cofeelam ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bugg na lépp lu mu gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam def rek mu def ko parce que boo seetee huwa alqaa'ilu lahu ra'su minni summa wajhi wa lihyati wa zahri wa batni walwala wa ma jara waaw sopp na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba bugg na lépp lu yonent bi def rek mu def ko moo ñëw natt fii ba pare wax waxam bu si boobu ne saidun man dufina fiha wa saidun man zaaraha waaw maanaam képp kuñ fi denc rek texe nga képp ku ñëw ziyaare ñun fi ñun fi denc tamit texe na saaka nag bu fekkee ne ñun ñëpp dañoo ñëw pour xidmaal xidmaal ko damay faral di wax ne xidmaal ñu fi nekk rek ci ay awliya doy nañu saakaane ak Cheikh Ibrahima radiyallahu mu nga xam ne moom moo samp place bi di ñaan yàlla euh, yàlla defal ñu tawfiq wa ma zalika allahi bi aziz bëgg neen bàyyi yal nañu bàyyi bëgg xid bàyyi xidmaal nañu yal nañ ko xidmaal ñu bi kulli sidq wala balan ci dem soldaar mu jaw foo ñu rappel sidi bara xam ma garab ak dee moo da ñàkk a juddu degi biñ ko galan lo gis bo bëggeen ba ñëw na sidi barahama wakki ndundu de koy widdi bala na quartier dem bu gal di kosse gal di départ sa Ousmane Niass gannaaw bu mu commencé bi la liggéey kilifa yi kontaan si lool fas yéene jël lenn si kàddu ay témoignage jox ko ndénkaane jar na kenn ku ne fàttaliku ne kullu nafsun saayiqatil mawti bile bés ana ñu ko seede woon tey jii nii ñëpp wuy ji nañ moo la naa seexul islaam alhaji ibrahima Niass suñu bàyyi suñu soppe suñu sëriñ suñu lépp alhaji ibraham bu seex sëriñ Baye Niass yile kàddu moom la jël dénkaane ko ndaw yi àndoon ak Seydou Ousmane si bés bile lenn la ngay seet ñi ko njëkkoon a liggéeyal ba mu def leen ay sëriñ te waxoon na leen leen yéenay sëriñ yi réew mi Hmm? ara arakum mulu mulu kal ardi la shak lolu lo ñom ko ci gis rek ñom taqaddum maqdam ma yi da nga rek dang koy ragal nit lu mu bari bari daraja lu mu bari bari xam xam soko xamul xamoko do ko wek waye maqdam yi bay ku len def sutu rek da nga ragal da nga len ragal da nga len wek da nga len magal da nga len hormal loolu ci ci bàyyi la nekk nekkul ci keneen lu ma ci Mawlana Cheikh Ibrahim te ñooñu ma leen di wax diggante Cheikh Sëriñ Baña Sëriñ Aliou Sy rek ñoom Ibra Fall ak ñoom Cheikh Matouré lépp luñ xam rek bàyyi ma leen ko ci min alif ilaa yaa lépp ma leen ko xamal boo leen gisee rek nag ñoom ñooy sëriñ réew mi ñooy buur yi sax ñëpp bëgg nañ leen liggéeyal leen baay liggéeyal leen sax Mawlana Cheikh Ibrahima lay wax ulu naa ko us naa ko xam naa ne mu moom ulu naa la ànd leen nag moom ngeen liggéeyal baay ànd leen nag moom ngeen liggéeyal Mawlana Cheikh Ibrahima su ko defee du ngeen ko rëccu incha fi zahir la batin asalaamaaleykum Sidi kullu nafsin saayiqatil mawti yaa ayyuha naasu harmel këram dul la gëm leen Sidi Baraham ma ne gannaaw dund gi dee ca topp baleen kan ci dem soldaar mu jëm foo ñu mbokki internet yi mbokku téléspectateur Kossy TV dégg ngeen maam gannaaw kàddu yi mu yëkkati jagleel ko Cheikh Ousmane Niass ak njaboot gi mu àndat waaye ñu ngi ko amalee fii ci kër gu mag gi si kër Cheikh Serigne Mbaye Niass mu nekk mbégte ak kontante ñeel taalibe Baye yëpp ñu ànd ak keneen suñu bàyyi suñu soppee suñu xarit Cheikh Mahamadul Makki Ibrahima Niass bilee mbir bi mu xewee mu ngi ko fekk si bitim réew waaye liggéey bu am solo bu si Kossy TV def tax na mu jël mbégte ak contentement tegle ko Kossy TV daal di andi ñaaxam ak taalibe yi si liggéeyu armeel yi la. dem naa ca fa ca ca bu yàggut ji rek ci weer semaine bi passé maa ngi woon ci Allemagne waaye hôtel bi ñu nekkoon ci kii bi bi ñu defee YouTube gis naa yu bëri yoo xam ne positif yi ñoom ñoo ko def ñu def ko ci kii boobu muy jotal ñi nga xam ne ñëwuñu woon ñi di déggal ñi nga xam ne dégguñoon kon yàlla na yàlla dëgëral seen taxawaay yàlla na yàlla jàppale ñu ne ngi yëngatu itam pour yëgle li nga xam ne moom moo xew ci Médina ndax euh, armeel yi dafa miir bi dafa daanoon ndax presque bañ sañcee Médina ba tey ñeg lañ ci defoon gannaaw boo xamee ne gannaaw bàyyi bu bàyyi sañcee Médina euh, mille neuf cent trente ba 37 ba mu ajee ba ñëw ci la natt li ko dalee ci baqeew ba ci ba ci ba ci xabru yonent bi sallallahu mu daal di ñëw bu ñëwee daal di toxal fii fii nii kër ba euh, Bachir dëkkoon ak euh, koñ boobu nga xam ne mooy mooy carré boobu nga xam ne mu ngi jëm ba jàkkaarloo kër Thierno Diallo ba dem ba ca kër euh, Cheikh Mahi loolu buñ bi ñu sañcee dëkk loolu doon armeel yi ba am na ay doomi baay yoo xam ne jot nañ leen fay def bi nga xamee ne bàyyi dem na 1937 bi mu ñëwee nag mu daal di natt kii boobu daal di ñëw natt natt ko diggante armeel yi ak ak xabru baay bi mooy diggante. Eh, eh, kii baqee ak xabru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon nag tabax boobu suñ nee ba nga xam ne bëgg nañ koo beesal ndax eh, ndox mi bëri na te ndox mi dugg na ci dugg boo xam ne ñaari at yu mujj yeeg noor ak nawet waxtu wuñ ko see pax ba nañ cee def nit ki danañ fi ndox dana ball waaw kon nag loolu moo loolu moo tax ba ba ba ba feeñ ci tabax bi ba tabax bi daanu am na ay kuréel yoo xam ne ñu ngi taxaw ci njiital xalifa Cheikh Ahmed Tidiane ci ndigalam ci njiital Ousmane Ousmane doomu Cheikh Ahmed Tidiane moom itam moom mi mu ko dénk mi ngi jokkoo soppee ak mbokk yi fu ñu nekk kenn ku ne indi li nga mën def ko ci ndax lii taarix la maanaam dina toog ba nga xam ne sa sët yi danañ wax ne suma suma baay wala suma maam fekkee woon na ba ñuy tabax armée yi ba mu def ci loxoom kon nag lii ku ci def dara loo ci def na sànkuut te yaa ngi koy defal ay góor yàlla yoo xam ne liggéeyal nañ Mawlana Cheikh Ibrahim liggéey nañ ci dëkk bi ba nga xam ne ñoom su ñuy wax Veylade Cheikh Ibrahim ca ñoom la déparé woon ñu doon ay ñoo xam ne dañoo ñëwoon ànd ak baay lox ay tànki neen ba ba fii leer dara nekku fii lu ñuy lekk lu may new ñu daal di dem suñ demaan Kawlax ba yalwaani sax suñ xàmmee ne Medina lañ jógee kenn du leen sarax bàyyi na leen bis dana ñëw mbariti Medina yi ak ak puwe nit mën naa ñëw sol ci mbubu nit mën naa ñëw lekk ci ba suur loolu dañoo fa ko waxee dañoo foogoon lu yàgg lay doon du gaaw a ñëw waaye ñëw na ba ñu ba ba ba ba ñu fekkee ko eh, xewal boobu nag nga xam ne ca ñooñu lañ ko defoon muy waaye yi ñi nga xam ne wa saabiquuna saabiquuna ulaayika humul muqarrabuuna ñoom ñoo fa nekk ñoom Baye Ibra Lo eh, ak ñu mel ni moom Baye Ibra Fall ak ñu mel ni moom Baye Mahmoud mi nga xam ne moom Mawlana Cheikh Ibrahima ñoo bokk ndey ak Baye ak rakkam Zeynabu ñoom ñëpp ñu nga tëdd foofa loolu su amee dara lu muy tegtale bàyyi dafa wane ne daggitam la fa def ak mbooleem ay doomam ñu daal di nekk foofu kon loolu ku ko teral teral nga bàyyi waaye teral bàyyi mooy teral tariqa tijaan mooy teral lislaam kon nag ñu ngi ñaax nit ñi ne lii nii benn benn yi koy def ñi ci ñëpp lañ ci ut te liñ ci def xéewal la ak yërmande la jëm ci bépp ñu jamono ju mujj ci lañ nekk joo xam ne lu nit dafa def rek yaakaar naa ne yàlla dana ko triplé fukki yoon li mu waxoon ne man jaa bi xasanati fa lahu ashri amsaaliha yaakaar naa ne léegi war naa ëpp fukki yoon ndax ne def lu bon moo gën a yomb soo demoon léegi ca ca stade ba wala nga dem léegi ca fa ñuy feccee wala yooyu nit dana def da gis ku fa baatare xaalis boo xam ne danañ xam ne euh, li mu koy def du yàlla te lu bëri lay doon itam kon nag euh, des li nga xam ne moom mooy yàlla li nga xam ne yàlla kese la ñu bëri nanguwuñ cee def ndax amul ngistal amul dara moo tax ñu bëri duñ ci nangoo feeñ kon nag benn benn yi ko nangu amul sikk ne liñ def yàlla dana ko gis waaye dana ko triblé itam dana ko yàlla defal kenn ku nekk ci mbokki internet yi mbokk téléspectateur Kossy TV jëf jaa ngi noonu Cheikh Mouhamadul Macky Ibrahima Niass leeral nga lépp si loo xamante ne nii lu ñu waroon a tënk si kàddu la joxe nga ko mooy jëf ju rëy képp ku koy def bésan si bés yi doo ko rëccu loo may sababu tey jii nii ñu mën a indiwaat la woon démb tegaat ko àdduna bi yëpp mën koo seetaan eh, Cheikh Mouhamadul Makki ñu ngi lay ñaanal yal na yàlla guddal soo fan bu baax a baax may la fan bu gudd bu ànd ak wér waxtu woo waxee rek xam-xam yëngatuwaat Seydou Ousmane yal na yàlla yokk sa leer taaj sa barke yaa ñu mayaat kàddu yi magi démb yi wax fàttaliwaat ko ba àdduna yi yëpp da si man di jëfandikoo armée li Medina Baye ñu déggee si ne 1937 la ko Mawlana Cheikhul Islam rëddee gannaaw bu nattee bàq ya comme ni ko Seydou Ousmane waxee si njëlbeenu vidéo bi tey armeel yi melokaan bii mu nekkaat dëgg-dëgg mu nekk mbégte si taalibe bàyyi yëpp kenn ku si ne gis ngeen tey dimension bi armeel yi nekkaat mu nekk contentement miiree nañ ko ba mu daj autour ko ay buntu te bëgg-bëgg bi rek lii rek moom la woon kilifa yi doon sàkku waxtu wu ne tey seen doom defal leen ko sëtëb Mawlana Cheikhul Islam Alaaji Ibrahima Niass Baye kon ñu bàyyi leen ak Cheikh Ousmane Niass si lenn si ay kàddu yu gàtt rek mu dénkaane ko bàyyee ñu ko ñu dikkaat ak yéen idi bara xam ma ne guddeeg bëccëg fajara koy xatte moom laam duun moom bu jant fenki lëndëm bi min sidi bara xam ma bàyyi nag radiallahu anhu yàgg naa ishaara bi yàgg ne jamono dina ñëw wa ubrizu lil jiil al jadid misaala the new generation muy yuut xale yi ñoom ñooy yore maanaam euh, liggéeyu faydu bi te ñoo koy àggali fu mu fu mu mar a àgg bi isnillah ci jaayam so ñu sant yàlla ba nga xamante ni yàlla boole nañu ci buñ ci génnee seen bopp rek daanaka keneen du fa nekkati comme maa ñu oo shabab yëpp xam ne maanaam ñin ñoo mën a xidmaal pee bi ñin ñoo war a taxaw ci lu pee bi soxla yëpp kenn keneen du ñu ko defar te am neen macha allah. population boo xam ne mën na loolu te Baye radiallahu anhu ñaan na ko te ñaanam yëpp mustajaab la cheikhaan yi ñoom ñi nga xamante ni ñoo ko xam def na ko tujaabu ida daawta allaha yowman walam yaku kulla man yaduu yujaabu ba dafa doon wasfu Baye ba naan yaay koo xam ne loo ñaan rek nangu ko te doon ne ku ñaan rek yàlla nangul ko seen ñaan kon bàyyi ñaan na ba pare lu ci dess mom ñun ci ñun la dess arabiy dañuy faral di wax naan yéen bëri ala sharibil bi'ri an yazkura hafilahu wa dalwa Euh, nit bu ñëwee fekk teen bu ngas ba pare waxuma la waaye euh, tànqal nel la ndox ci teen bi ba tegal la ko ci buntu teen bi war nga boo naanee ci ndox moom ba pare sant ku la gasal teen bi ak ku la tegal ndox mi te mooy Cheikh Ibrahima radiallahu anhu comme ñun ci oo ñëpp wax dëgg yàlla albaabu maftuux euh, fa man chaa yatihi qubayla mamatihi wa man chaa naawa ka ahli shaqaayi te yàlla buñ bokk ci ahlu shaqaayi liggéey bi comme ni ngeen ko gisee ndigal mutlaqan lañ ci am ci xalifa bi xafizahullah euh, yàlla na ko yàlla bàyyi ba ci kanam a kanam euh, sëmb yum sëmb ci pay bi yëpp yàlla na ko yàlla mottali euh, ak ndigal boo xamante ni gannaaw ndigalam ci imaam imaam ñoom ñëpp wax dëgg yàlla rafetlu nañ taxawaay bi te agsi nañ fii ñaan fi tamit waaw comme ni ngeen ko gisee yaakaar naa jël nga kii bi yëpp. mbokki internet yi mbokki téléspectateur Kossy TV fii la Kossy TV daal di am ak yéen si rendre hommage bi mu jagleeloon si Ousmane Niass gannaaw bu amee ndigalam si wajuram kilifaam si Ahmed Tidiane yal na yàlla yokk leeram tax ñu si barkeem borom yéen a ju kawe ji dëgg-dëgg yéenam lépp moo nekkoon Medina Baye ci kaw ca kanam ci lu baax waaye mul umma fas yéene mottali liggéey bi yal na yàlla oyofal yéen bi ci kawam yal na yàlla dëgëral ko sàmbal ko bu baax waaye dégg ngeen si mu jeexalee Seydi ya molaya imamul akbar Imam Cheikh tian ali Cissé yal yalla may ko fan bu gudd lool bu and ak wér dugal na loxom bu baakha baax ak dolem ci am solo ci liggéeyu armeel yi batay tey Cheikh ñoo xam ne mooy kër gi di Cheikh mohammedul Mahi porte parole kër gi momi def na liggéey bu am solo si fond mi dina bàyyi fi ci armeel yi loolu yëpp ñu ko ci TV sédé nañ ko si jëf ju rafet ji nga xamantene ni Cheikh mohammedul Mahi def na ko fi ni kon ñun rek lañuy ñuy daal di àndee ak Cheikh Magnès ak mbolo mu takko mi nga xamantene fekk ci nañ ko ci bi liggéey bi ñu xudamul fayda mu nekk ndaw loo xamante ne nii créé na ko si biir liggéeyu armeelu Medina Baye yi de nga xamante ne nii yéene bi ak bëgg-bëgg bi rek mooy mu eggaat fii nii si taxawaay ak képp koo xamante ne yaa ngi doon jàppalanteeg moom suñ limee dinañ juum ndax adduna bi yëpp sembu nañ liggéey bi ngir mu mat si jàmm kon dañuy bàyyi ak xalifa bi Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass kaddu yi mujj yi nga xamante ne dénkaane na ko ndaw xudaamul fayda comme ni ko Cheikh Mouhamadul Makki Ibrahima Niass waxee kon ñu ngi kontaan bu baax a baax di wax ne lépp lu si juum si kaddu ñu ngi jéggalu lépp lu si baaxit eh, bëgg-bëgg suñu ndokkeel di jaalewaat liñ bokk suñu sëriñ suñu lépp seexa Seydou Tidiane yeen a ci am yal na yàlla indiwaat ko si jàmm moom mi ngi màkkatul mukarama ak képp ku fekk foofu noonu bànneexu ña seen mooy bànneexam waaye naqaru ña seen mooy naqaram Seydina Aliou Guèye maçon spécial si taxawaay bi nga xamante ne nii moom nga am si lépp lu xew mi dina bàyyi si biir réew mi ak si biti réew seen bokk seen xarit Seydina Moussa bi tey si kàddu bi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf des leen di ànd ak programme Kossy ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel. ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel. ci bés bi ci jotaay bi. nga xam ne ñu ngi ko fas ak yéen. nga xam ne jotaay bi ñu ngi ko fas ak yéen. di am mbégte di am mbégte ak kontante. ci seen taxawaay bu rafet. ak seen ittee ju kowe. ak seen ittee ju kowe. dëgg-dëgg. dëgg taalibe noonu la war a mel. taalibe noonu la war mel. ñun de suñ sëriñ. mooy baay. mooy baay. digal lu may li nga xam ne. mosuñoo digal lu mooy li nga xam ne moom la yàlla digle. mosta dañ itam di leen tere li nga xam ne moom la yàlla tere. lu ci nekk nag daf ci jiitu woon am royam ak ay taalibeem topp ci koom. lu ci nekk ci yooyu moom Baye def ci jiitu woon ay taalibeem itam toppoon ci kawam. dañoo bëgg a léegi nag bu fekkee ne bëgg nañoo dab ñooña dañuy jaar ca yoonu nga xam ne ñoom ca lañ jaaroon. lañ nekkoon ñu nekk ci. la nga xam ne ca lañ nekkoon ñun ñu nekk ci. la nga xam ne moom ñoom loolu lañ bëggoon ñun itam ñu bëgg loola. ñoom lañ bañoon te di ko moytu ñun itam ñu bañ loola moytu loola. loolu su fekkee ne continué nañ ci. loola bu fekkee ne continué nañ ci. dañ danañ leen dab wala ñu fekk leen foofa nga xam ne ñoom fa lañ nekk. waaye yoon wi su fekkee bàyyi nañ ko. waaye yoon wi bu fekkee ne bàyyi nañ ko. feneen lañuy yóbbu. waaye du ñu yóbbu ci ñoom. day du yóbbu ci ñoom. kon nag nañ góor bu bu baax. ñu ànd. ñu bennoo. ñuy diisoo. ñuy ñuy dimbalante itam. te loolu day bu fekkee ne am na. danañu dimbale. yàlla danañu dimbale. ba nga xam ne xam ne ñoom lañ kon day danañ àgg fa nga xam ne ñoom fa lañ àgg tey. amuñ beneen yoon nag boo xam ne ci lañ mën a jaar. amuñ beneen yoon boo xam ne ci lañ mën a jaar. lu mooy yoon dul ne mooy yoon woowa bàyyi nekkoon ak i saxaabaam. kon nag nañ ciy dimbalante bu baax. nga xam ne moom lañ ñu bëggloo bëgg li nga xamne mom moom lañ ñu bëggloo def itam tanaafus ci loolu def itam tanaafus ci loolu mooy rawante wala ëppalante ci lolu bu boba yalla mën nañu dimbalé yalla mën nañu dimbalé bañu taxaw tank yi ya nga xamne ñoom moom lañ taxawee ba ñu taxawee yi nga xamne ñoom mom lañ taxawé won amuñ beneen yoon nag buñ mën a jaar bu yoon woowa mooy yoon wi nga xam ne ci la baay jaaroon ak ay saxaabaam ak ay saxaabaam ñoom ñooy suñuy ñooy suñuy dig ñooñ ñooy suñuy dig ñoom rek ci ñoom lañ itam ci lañ war a roy bu ñu royee ci ñoom bu ñoom yàlla mën naa def ñu mel ni ñoom waaye nag. bu fekkee ñoom dañuy aw ndeyjoor ñun ñu aw càmmooy. bu ñuy dox bu ñuy dox nag bokkuñ fu ñu jëm. kon nag nañ kon nag nañ xool fa nga xam ne ñoom fa lañ xaw. ñu topp seen kaw aw yoon wa nga xam ne ñoom moom lañ awoon. leen jot wala ñu kon danañ leen jot walla ñu fekk leen fañ nekk. mu ne buñ demee ndeyjoor ñun ñu dem càmmooy dañuy réer te duñ daje ba mukk. yàlla moom moo fi nekkoon moo ba tey. te moo fi nekk ba tey. te moo fi nekk ba faw. te moom dawe. suñuy way dawe. moom lañ nekkatoon. moom lañ nekkatoon. moom lañ fi nekkaloon itam. lañ fi nekkaloon itam. waaye liñ fi nekk ak lañ fi nekkee ak moom bàyyi mooy wéyal ay ndigalam bàyyi ay teram. lépp loo xam ne yàlla santaane na ko. lépp loo xam ne yàlla santaane na ko. ci taxaw nañu ci taxaw nañu itam. lépp loo xam ne tere na ko. lépp loo xam ne tere na ko. ñu bàyyi loolu ba nga xam ne duñ ko jege sax bàyyi loolu ba nga xam ne duñ ko jege wala sax duñ ko wax. duñ ko wax te itam duñ ko jëfee. yoon woowu daal buñ ci awee. dañ woowu leen jot wala ñu jot wala ñu fekk leen fañ nekk. kon nag lim ñuy sant ñun taalibe yi. mooy ñu àndoo. bennoo hitam. tey diisoo hitam. tey itam ñuy dimbalante. loolu daal bu xamee dana nekk suñ dimbal ñun ñépp. waaye lu loolu nag. ci leneen la ñuy ci leneen lañuy ñuy jëmee. ci lañ jëm ñoom wala ci lañ nekk. waaye du ci ñoom lañ jëm walla ñoom lañ nekk. kon nañ dimbalante bu baax. kon bennoo xol yi. bennoo te ñuy diisoo itam ñuy dimbalante ci suñ biir. loolu daal bu fekkee ne def nañ ko. yàlla mën nañoo dimbale. ba mbir mi oyof. te duñ jàdd. waaye leneen lu dul loolu. waaye leneen ci leneen la ñuy yóbbu. ci waaye duut lañ nekk ñoom. kat ca ñoom lañ nekk. kon nag loolu war nañ ko wattandiku bu baax. ñu ngi leen di sant te itam sëriñ bi ne mu ngi gërëm mu ne itam mu ngi rafetlu tànk yi nga xam ne moom lañ jug di ko dox ndax yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam wax na ne ñi nga xam ne dañoo bëggante ci yàlla te ñuy ziyaara wante itam ci yàlla keroog bu keroog àllaaxira eh, nga xam am lu may dul benn ker du am lu dul keroog yàlla gi bés keroog boobu muy keroog ron arash mu ne ci ker googu la leen di keroog yàlla ne ñooñu nga xam ne dañoo soppante te yàlla rek a tax ñooñu ci ker ron arash googu bés penc moom la leen di keralee dañ nekk di kon nañ fexe nekk di ñooñu. te loolu li ñu koy may. mooy topp ndigal yi. bàyyi tere yi. lépp lu ñu yàlla sant. lu ñu yàlla sant. ñu góorgóorlu ci luñ mën. lépp lum ñu tere itam ñu bàyyi lépp. yoon woowu bu ñu ci awee. danañu agalé fañ nek amut nak benen yoon ñun ñep nañ ko xam kon nak sëriñ bi né mu ngi sante sant mu ngi ñuy gërëm itam mu né sëriñ bi né mu ngi li itam and bi nga xam ci yalla la wala ando ci yalla la àndoo ci yàlla nag li ci yonent yàlla muhammad digle daal mooy ñi nga xam ne soppante nañ ci yàlla ziyaarahante ci yàlla bëggante ci yàlla yàlla dana leen keral bés ba nga xamee ne ker amut coroon aras googa loolu nag dara tolluwut ni moom bës booba moom kerdu am naaj wi rekk koo xam ne kii nag koo xam ne kii nag mën ngaa mën ngaa am yoon wula xàggale àggale yoonu ker ak aras ga nga di ci kerlu dëgg-dëgg kooku ku ko yàlla may waroo ko bàyyi di uuti keneen ku moom kon nag sëriñ bi ne mu ngi ñuy sant mu ngi ñuy gërëm mu ngi ñuy ñaanal yàlla itam ñu kontine itam ci ànd bii di dimbalante ci suñu biir te itam ñuy diisoo lépp luñ gis ne lu jub la loola nañ ci xaw loo xam ne safaanab njub la loolu nañ ko wattandiku bu ñu defee loolu yàlla danañu dimbale te nag ñu ngi xaw ci yoon woowu yàlla nañu ci yàlla dimbale ba nga xam ne danañ mën a continuer di dox ci yoon woowu duñ toog duñ dëpp duñ jàdd kon fokk rek ñu àgg fi nga xam ne fa lañ jëm yàlla nañu yàlla dimbale jox ñu suñuy bëgg-bëgg jox ñu suñuy càkkutéef jox ñu itam suñuy mébét barkel suñuy yëngatu ak suñuy dal لولو يالا من نكو يالا نيكو يالا دفل يا ربي تي بارك يونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم تي بارك شيخ تجاني رضي الله تعالى عنه تي بارك باي اك بايام كل نفس سائقة الموت يا أيها الناس هرمل كرندول لغم لين Sidi Barahama ne gannaaw dund gi dee cee topp baleen xel dem soldaar mu jëm foo ñu rappel Sidi Barahama ne garab dee moo da ñàkk dee gi duñ ko galan loo gis ba bëggeen ba ñëw na Sidi Barahama waqi ndundu dee koy widdi balare quartier dem bu gal di kosse gal di départ Sidi Barahama ne guddeeg bëccëg fajara moom laam duun moom bu jant fenki bii min Sidi Barahama kullu nafsin saayiqatil mawti yaa ayyuhan naasu xarmel këram dul la gëm leen Sidi Barahama ne gannaaw dund gi dee cee topp baleen xel ci dem soldaar mu jëm foo rappel yéenay liggéey fay baay bi si ji barahama Kossy ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanal waa Kossy TV